Let's go. السماء المتى والآن سماء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيف ترخى رقية الأنبياء مصطفى يا سماء المتى والآن سماء يا من لم يساوك في علاه وخدع لنا حسنا منك دونهم وسلام إنما أنا سلف ذاتك لله وأرسل بيرتي ويعلم سلوك نجوم الله sallallahu alayhi wa sallam اخرق سبيل تلك لم يساووك في علاك وقد حال لسنا منك دون علم وصلاء صلى الله عليه وسلم ينمت بنين وصلا منك دونه صلى الله عليه وسلم لم تزل في دمع والاباء لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل بك ينتي بلقى لخ تكو لم تزل لم تزل لم تزل في دمائر الكون تختار لك أمهات والآباء حسبي به وبطاها حسبي

Khadija

صلى الله عليه وسلم كيف ترخى رقية الأنبياء مصطفى يا سماء بقى ولا سماء لم يساوك في علاك وخد على حسنا حسنا منك دونهم وسلام إنما أنا سلف ذاتك لله وأرسل بيتي ويعلم سلوك نجوم الله صلى الله عليه وسلم اخرق سبيل تبنك لم يسعوك في علاك وقد حال لسنا منك دون علم وصناء صلى الله عليه وسلم ينمت بنين لم يسعوك Listen, I'm وصلى صلى الله عليه وسلم لم تزل في دمع تحتال حق أمهات والآباء لم تزل tazal ku bëgg yonent bi loxo loxo ca kaw lam tazal lam tazal lam tazal fi damaa'ir al kawni tuxtaaru laka ummahaatu wal abaa'u حسبي به وبطاها حسبي بصيحة جاني حسبي به وبطاها حسبي بسيف تجاري حسبي به وبتاه حسبي بسيف تجاري حسبي Espírito.

Baba. What's my bay sa dama déglu tey benn rajo benn animatrice di wax ba mu neex oui ma Abdoul Aziz Sy Dabakh dafa baax a baax a baax bañ koy ooyee Dabakh mais dama tiit ba jógaat toog kon ñoom dañuy tappale moo yi nii rek wala di après ci laa fexe ba xam ni jafala la ma oo ko ñu jox ma numéro bi ma ne ko booy goxati dara ci rajo na la fekk mu leer la gis nga maam Safiyatu Ñang moomu ngay wax bi mu ëmbee bay mucc yàlla di ko may bant muy maam Abdul Aziz dafa fekk Sidi Haj Malik di jàng téere boo xam ni ki ko bind boroom xam-xam la boo xam ni maghrébin marocain la bu tudd al dabaax dabaax moy le tanneur moy ko xamni ni day wulli der di tane la peau de vache de chèvre et de mouton pour uude mën ko utiliser lolou moy dabaax mu tuddee ko Abdul Aziz dal di koy dàkkantalee dabaax parce que daf ko fekk muy jang téere bobu xam nga c'est c'est des petites choses yo xamni des fois on joue avec les mots di wax ni mbaax dana dab nit yàlla ki mu gën a bëgg mooy ki repenti ki am expérience su àdduna ñam gauche ñam droite mëq cooyam siim ba xamee lépp jël dal ko ciy teg gis nga boo jàngoon le cours de l'éthique de Kéba Mbaye bi mu naan debout avant qu'il ne soit trop tard en rappelant de la pensée d'Emmanuel Kant Emmanuel Kant boobu philosophe bu mag la ci lay wax ni l'argent c'est pour régler des besoins mais au-delà il est inutile parce que nit ni bi nga xamee ni guñu boba khalis amul dang may jox ñaari kilo pepp ma jox la ñaari kilo dugub nga jox ma kilo yàpp ma jox la ginar def système troc mais avec la multiplication des personnes, la multiplication des biens, il faut un moyen d'échange. La communauté financière africaine, pièce de monnaie, et billets de banque, c'est le trésor public parisien pour BCAO. E ñu am ay comptes spéciaux de trésor ces comptes n'ont jamais été déficitaire. yal nañu yàlla may li ñu dundee rek bañ ñu may loo xam ne daf ñuy jaaxal parce que Sénégal ñu bañ dinañu lakk te dërëm moo leen di lakk. di wax ni benn bés Samba Jabare dafa toog ma Abdou Aziz mu ne ko moo Samba mu ne ko naam mu ne ko Samba dee leen ñu bon ñi Samba ne ko moo dabaax ku bon nees koy woyee. mu ne ko xanaa xamuloon ni bu bon amul woon mbaax du xam te kon àdduna taxaw ku bindoon sa bopp doo ñaaw te doo doon ab di wax nag cadre bii ñu nekk muy Kaolack setune une diversité culturelle Kaolack selebe yoon dëkku xorom Kaolack dëkku ngexte Kaolack dëkku ndox ndaxte bi Diam ni ñi c'est le fleuve Saloum 1493 premier bourse Saloum bi ñu samp ne Mbégaan Ndour la xam nga Kiong Keita sax jitu na ko Siré Badiara Mané ak ñeneen ak mais bi ki mu rek la premier bourse Saloum mais ñu di fal ay buur da Mbagaan ba ci Fodé Diouf 1969 buur Saalum bu falu rek dem ko woon dundal na pendant 300 ans ñetti siècle ñetti ñetti téeméeri at mu koy dundal Sénégal waaw parce que la moitié des graines fii lañu ko doon cultiver dëkk boo gis fii ci taarix am na signification boo demoon Koupantoum ñu ne la mooy Copper Town xaalis ba bari woon fa nga dem Sokone beta Sokonu soose mooy kër nga ñëw fii tey Maba Jaxu ak ñoom seen paate du la jóge na Fuuta ñëw Jolof am fa njóogu am paate mu ñëw ñu dalal ko tawakaltu alallaahi tawakaltu alallaahi googu ba mu ñëw fa am fa soxna mu jur Abdoulaye Wali Mata xuma benn mu juree Maba Omar Fouti yu taal jóge Makka 1842 wàcc sud du Sénégal joxe ndigal ci jihad Maba Jaxu kon boo gisee Poroxaan Caameen Waalo Tayba Ñaseen dëkk yooyu yëpp ci bataay boobu la ñu ndax xam nga li waral parce que Maba bi nga xamee ni yi nañ wala xadd karab na wolof amul wala xadd karab na bànni aadama motax ah, voisinage bi ñu ah apparenté facteur de cohésion sociale Je koñ bi ñu ne la kër ràbb yi kër géwél kër pël kër sérès yi mais toujours dañuy bokku lépp lu ko waral gi mom suis gis nga euh, lamarana Je muy wax man suma xarit la lama bama koy xam du tay doomam euh, doomu rakam momay may dawalal daan nekk sama wëllëre bay oustaz Amady Niang donc fii Kaolack ben bop la parce que bu population bi donné 1 million 2021 bi lokoy koy mais il y' a 30 ans ci gannaaw on faisait même pas trois cent mille chef de famille yep dañ dan xamanté yow am da ngay dëkk bustaan wër na yàlla léeg-léeg nga dox ndakaaru nit rob la nga xam ki kii xamoon nga ko bustaan la dëkk wala bongre donc naaw fee kërërëri jéeg yooyu yëpp amul li am solo man dama la koy wax am parce que des fois l'expérience vaut la différence man xamna ni ñewulo kenn te sa am na orienté parce que am na ñoo xam ni de bu ñu ci ah. te bo tomate wala euh, euh, ay ñaari ak def fi am doon acculturé complètement de fuñ complexe rek gëna sonu dakar Ndakaaru loolu bu ngoon joté nga gis leen ñu rang ci kiyé gi démé non mais yow xolal tu rejettes toute chose futile et périssable de sa bàmmoon dem nga dégg anglais dégg dem nga garage gaaraasu Dakar xam nga réro jaar armée sénégalaise tous les couleurs et les drapeaux de l'armée sénégalaise def service de sécurité am expérience tukki ñew tok li nga am da nga xuus kenn jàllalewu la mais munoon nga toog di ko ñiiram dal fële defuloo loolu. ak vélo lépp def na ko. ko. am jom parce que de routine back to source la. lu mu bon mu bari nga ñëw ak événement bu mu mën a doon danga ne ah yow lii day jël benn ndaraan mu xoos saara ci ndox mi yàlla gis na. ñu yeewoo ci ndox bi coono bi ñuy am nga jékki-jékki juróomi jigéen ñëw gars yi am benn financement bu ndaw. sa xarit boo màggandool benn bagage am nga làqatu ci suuf faj ko bésu gàmm ñëw tey bàcc mbaay ñëw gës jaar ñu gisante suba ëllëg nga nekk ci leneen xoolal sama rek bu fi yemoon sax neex na ba pare loolu leer laa yoo am na ay na bagage yoo xam ne jarul sax ci xëccoo wala yu demee noonu moo tax euh, gis nga li am solo kullu nafsin saay xatil mawti waaw ma ma ñëw tuuti rek dagg bi lii daf may réeral samay xalaat waaw da ko waaw noppil rek ma ñëw ah yow euh, yow Assane Samb Kumba jàngaan kona paga bi demee ba mu fay am dafa amoon doole laay euh, xam naa la sama géwél nga di wax ni dëkk bii ñu dëkk ñoo ko bokk dee man ta lan mooy aljana àdduna fii ci kaw suuf sol yére bu baax am wér gi yaram ah yére bu baax am wér gu yaram dëkk fu baax am jàmm ak nit ñi dangaa mën a weesu loolu ci àdduna nege naayu or lalu jamaa sax boo ci tëddoon a gën dara nit a nga fee am bànneex parce que liñ naan ku xeebu li nga am rek doon sa buuru bopp yow bar bi wala dawalkatu euh, sareetu mbaam bi wàcce 5000 francs jël 1500 jox jabaram mu toggal ko mbaxalu saalum def ci gejj ko ba mu saf nekkatu ko lépp mu teg lalu gongoom fee takk taxa teg taxañu rajoom doomam di raam néegu ñaxam nekke ne yow yaa ko xeebal nguuram mais en réalité mu ngi gis bopam les c'est à des niveaux yow am un complexe Donc, donc li am solo ci aduna moy ne fi way wu rafet. dégloo dégloo dégloo mais ñu tuddu les nga eh xam yal nañu yalla musal ci wala nga jip xol jeex wala apprécier wuñ la le temps soit peu que tu fais du bien sur la vie, ça va rester gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire. nit ni dofuñu nit ni ragné nañu rek jàllo dama lay wax que la ni de mësta jaas ci kër gi ndax man lima xam be xam y a 50 ans de cela ou bien 48 ans vous ma en train mi di dem tolu bu ñu ñëwaan ci kër gi dañ daan fekk ay billet xaalis yoo xam dañ koy daggate ba mu mokk sëkkee ko kër gi loolu maa ngi koy fàttaliku ma xam ni góor gi kon DCAO la nekk bi ma màggee laa def rapprochement yi di ko waxtaan waaye li am solo ba tey mooy sa wayjur bu jigéen ak sa wayjur bu góor bu ñu dekki woon tey doo defaraat sa toogaay